asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokk yi ñu ne leen di leen jaajëfal bu baax a baax seen topp ak Star TV ñi leen di dalal ci xibaar yi marax yi ngeen ànd ceeg ci Thiam ci ponk xibaar yi ci gën a fës dinañ ànd ak yéen ci Africell nu ñu ekkati 12 millions dalasis daal di ko teg ci loxo ñi nga xamante nag ñooy nguur gi pour daal di dooleel li nga xamante nag mooy xeexum coronavirus bi fii ci biir réew mi. Gambia Bankers Association mu doon mbootaay bi nga xamante nag ay banques yi ci biir réew mi ñoo ko daal di tënk. daal di ñu rek ekkiti lu toll ci 3 millions dalasis daal di ko rek teg ci loxo nga xamante nag ñooy nguur gi euh, su ko defee tamit nag ñu gën cee war a mun a dooleel sañu bopp pour xeexum coronavirus bi leem euh, GCCI ñoom itamit kitine nay matuwaay yi nga xamante nag waaye war na ko war mën a jëfandikoo euh, pour daal di xeex li nga xamante nag mooy coronavirus bi leem pour rek ñu daal di war a mun a jàppandeku pour rek xeex li nga xamante nag mooy jàngoro bi foofu ca bitim réew mbokk yi dineen ànd ak yenn uh, ci wàllum coronavirus bi tey uh, ku jiite bokku xaraam de ab mbootaay bu nu xataloon nguurum Nigeria ci jamono yoone la passé uh, ba tey jii nag caan si sañu bopp sax président bi mu ngi def kémtulaay kàttanam pour delloo li nga xamante nag mooy jafe-jafe bi waaye tamit nag ci jamono ju juñ toon ni ku ko jiite bokku xaram si sañu bopp wax na ne coronavirus ay ñaawteef moo ko daal di indi ci àdduna wërngal képp Libya ci jamono juñ nag wax ne ne Euh, seen nguur gu daal di dooleel pour rek xeex lii di xaftaar xaftaar mu doon koo xam ne nag moo nekk di munu xatal ñoom neen ci seen biir da wax ne dafa bugg a jël lii di réew ma euh, ci jamono juntoon ni wax ne ne nanguwaat ne yeneen euh, béréb ak tamit rawatina tund yoo xam ne mu nga foofa ca Libya doonoon béréb boo xam ne nag lii di xaftaar ci boppam moo ko daal di woon jël. Ah, mbokk yi foofa ca Kenya nag ci jamono jum toll nii jàngoro ba mu ngi fay gën a tasaaroo ba war na nguur gi ci boppam mu ngi def kéemtalaay kàttanam pour daal di ko xeex. Euh, su ko defee rek mbokk yi dineen ànd ak yéen faram fàccal leen xibaar yi. Euh, ñuy tàmbale xibaar yi ci Africell Africell nag daldi dinañu rek ekkiti lu toll ci fukki euh, million ak ñaar teg ko ci loxo ñi nga xamante nag ñooy nguur gi su ko defee ñi daal di ci jàppandeku pour xeex li nga xamante nag mooy coronavirus bi. lii doon na loo xam ne nag ab cek la gaay ekkati woon yóbbu ko foofa ca State House su ko defee ñu daal di ko teg ci loxo ki nga xamante nag moo jiite réew mi euh, rawatina ñu jiite wàllum paj mi su ko defee ñi daal di ci war mun a dooleel sañu bopp euh, pour xeex jàngoro bi nga xamante nag tënk na àdduna wér képp ba képp koo xam ne rek euh, mu ngi ci wàllum paj ñu ngi def sañu kéemtalaay kattan pour seet naka la ñuy def pour mën li nga xamante nag mooy jàngoro bi le dinañ seeti moom Seydou Camara ministre yaatam GSM operator bi lee di Africell yëkkati nañ lu toll ci fukk ak ñaari million ci kopparu dalasi daal di ko àggee nguuru réew mi ci seen wàll pour xeex jàngoro corona coronavirus bi Africell chief executive officer bi ak ñenn ñi nga xamante ne ay senior staffs lañ dem nañ nag giseek vice président bi di docteur Aïssatou Touré foofa ca State House niki talaata bi ñu daal di yëkkati chèque bi daal di ko ko jébbal chèque booba nag koppar bi lee ci la nekk mu di 12 million dalasi ci ndaje boobu nag vice président bi di docteur Aïssatou Touré moom nag rafetlu na taxawaay bi nga xamante ne Africell jël nañ ko pour jàppale nguur gi ci xeex jàngoro coronavirus bi tey tamit mu ne am na yaakaar lool ne ndimbal bi nga xamante ne Africell àggee nañ ko nguur gi dina am coppite yi nga xamante ne dinañ ko si gis ci xeex jàngoro coronavirus bi. mu continuer ay kàddoom di xamle ne nag yaakaar na ne Gambien si dinañ jàngee ci li nga xamante ne Africell def nañ ko ndaxte mu ne lépp li nga xamante ne indil nga ko nguur gi pour xeex jàngoro coronavirus bi mu ne Gambien si ak réew mi ci boppam nga nekk di jàppale. naka noonu it Africell chief executive officer bi mu di Badara mbay moom tamit yëkkati na ay kàddoom di xamle ne jamono ji nag àdduna si yëpp ñu ngi jànkuwanteel ay jafe-jafe ci jàngoro coronavirus bi rawatina li nga xamante ne moo nekk tundu Afrika. mu ne boo seetee nag di nga gis ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk réewu tugal yi mu di western wall bi ñu ngi jànkuwanteel ak ay jafe pour xeex jàngoro coronavirus bi nga xamante ne jàpp nañ ne ab noon la noon bi nga xamante ne nii doo ko gis mukk mu ne lu ñuy ñaan kay mooy pour rek jafe-jafe bi nga xamante ne moom lay def ci réewu tugal ya bu mu àgg fii ci suñu biir réew rawatina fii ci tundu Afrika. mu ne àdduna si nag ñu ngi jànkuwanteel ab jafe-jafe waral ko di covid 19 bii nga xamante ne coronavirus moom moo ko dee waral te sax buñ sukkandekoo ci WHO mu di World Health Organization bi ñu nge wane ne am na ay millionu doomu aadama yuy wéyee jàngoro coronavirus bi ci àdduna wërngal képp mu ne lii nag moo waral jamono ji nag jafe-jafe la ci àdduna si yëpp rawatina li nga xamante ne moom moo nekk réewu Gambia mu ne am nañ ay semaine ak tamit ay weer yi nga xamante ne nii dina métti lool fii ci biir réew mi te mu ngi suñu kanam mu ne jafe-jafe yi nga xamante ne moo nekk ci jàngoro coronavirus bi nag du wàllu wér-gu-yaram rek waaye tamit lu aju ci wàllu koom-koom bi ndaxte koom-koom bi it dina am jafe-jafe ci àdduna wërngal képp mu ne ñoom Africell nag yaakaar nañ te am nañ gëm-gëm bi ne seen warugal la pour ñu dimbalee nguur gi ñu xeex jàngoro coronavirus bi loolu moo waral ñoom tamit ñu jàpp ci xeex bi pour fexe ba gis ne coronavirus dinañ ko duma ci biir réew mi mu ne dinañ continuer di lëkkaloog nguuru Gambia bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambien ci seeni bopp pour ñu daan coronavirus mu ne am na yaakaar nag bu fekkee ne boole nañ suñu doole yi dinañ duma coronavirus bii di waral Covid 19. Seydou Camara Star TV News. gannaaw bu ñu jaajëfalee Seydou Camara mbokk yi ñu jàll seeti xibaar bu jom ci wàllum Gambia Bankers Association mu doon. ab mbootaay boo xam ne ay banques yi fii ci biir réew mi ñoo ko daal di tënk ekkiti neen lu toll ci ñetti euh, million dalasis daal di ko teg euh, ci loxo ñi nga xamante nag ñooy nguur gi su ko defee ñi daal di dooleel sañu bopp euh, xeex li nga xamante nag mooy jàngoro coronavirus bi nga xamante nag àdduna wërngër képp ñu ngi koy daal di xeex ci jamono juntoon yi lii nag doon na loo xam ne nag teg nañ ko ci loxo kuréel gu dénk wàllum paj mi fii ci biir réew mi dineen seeti moom Omar mën di ci yaatal. di Gambia Bankers Association mooy mbootaay boo xam ne moom mooy seetu wàllum ñuy denc xaalis ci réew Gambia ñu yëkkati lu toll si ñetti million dalasi daal di koy may nguur gi dimbale leen si xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def jàngoro corona bi di Covid 19. ndimbal boobu nag ñu ne dafa bokk si mbootaay bi li nga xam ne mooy warugal bu dox seen diggante ak askan réew mi rawatina nag li dox seen diggante tamit ak jërëm bi denk dénk wàllum paj mi ci réew Gambia pour ñu jàppale ko juróom-ñetti ne ñoom ñoo nekk si suufu Gambia bu ñuy wax nag si jotaay booba ci bànqaas association bi nga xam ne nag seen làmmeñ foofu la ca State di Ayo Kunle mi bokk nag si mbootaay boobu wane na ne ñoom nag amaana bokkuñ ci nguur gi waaye nag banque yi mënuñoo toog nag di seetaan réew mi nag nekk si jafe-jafe moo tax nag ñu daal di génn si ñoom seen mbootaay bi ñu daal di lëkkaloo ak nguur gi yëkkati nag ndimbal bu mel noonu daal di koy jàppale président bi ci bépp dogal ak bépp jéego boo xam ne jël na ko ah, doxal ko nag fii si suuf Gambie te ñoom itamit ñu nekk doomi réew mi ñuy liggéey fii si suuf Gambie pour ñu daal di koy rafetlu nag jamono jile ñu Gambie nekk dëkk boo xam ne réew mu óor la ñoom itamit na dinañ si def seen wàlla mbootaay bi nag digg nañ nguur gi ne daal pare nañ pour continuer di liggéey ak ñoom si bépp façon liggéey boo xam ne nag soxla nañ si gars yi rawatina si xeex bi nga xam ne ñu ngi koy def ci jàngoro corona bi gannaaw bu ñu jotee nag ko parce que nag mu ne jàngoro corona bi nga xam nag ñu ngi koy xeex mu ne dafa am yu bëri nga xam nag moom la àndal vice président doori mi la rek parce que nguur gi ñu ngi saytu ne dina am nag mbootaay yu bari nga am ne dañ génn si pour ñoo jàppale leen. mu ne xeex bi nga am ne nag ñu ngi koy def nekkul rek xeexu wérgu yaram waaye nekkul rek xeexu wàllum koom-koom du xeexu tamit wàllum politique rek li si nekk nag bari na moo tax dak mu ne amuñ si ñaari xel ne. nguur gi dong nag ñoo def lii di xeex bi pare nañ pour lëkkaloo ak ay partenaires maanaam ay mbootaay nga xam ne bokkuñ si nguur gi ay kuréel yi nga xam ne nag bokkuñ si nguur gi ak nit ñi baax nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réew mi pour mun a dàqal lii di jàngoro bi nag génne ko ci suufu Gambie ak tamit si àdduna wërngal mu ne Gambie nekkul dëkk boo xam ne dëkk bu euh, dëkkal boppam na si suuf si ndax boo xoolee tey yile àdduna war nga képp réew yi nga xam ne sax ñoom ñoo ëpp gambee doole te ñu am alal lool ñoom itamit nag ñu ngi am jafe-jafe kon nag li tax nag Gambie du ko am moo tax nag mu ne am na liggéey bu bari boo xam ne jamono ji mu ngi xaar li di réew mi ndax mu ne jàngoor bi nga xam ne nag ñu ngi koy xeex nekkul rek yëfu koppar tamit ak yëfu technique waaye li si soxla bari na lool moo tax ndimbal bi nag mu koy rafetlu mu ne si turli di nguur gi koppar bi nga nag banque association bi nag jox na leen ko dinañ ko dugal nag fa mu war a duga jàppale juróom-ñetti gox yi nga xam ñoom ñoo nekk fii suufu Gambia Omar Tunkara Star News. di jaajëfal Omar Tunkara mbokk yi ñuy jaala seeti Gambia Chamber of Commerce and Industry mu doon mbootaay boo xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllum bërëb liggéeykaay yi tamit nag. li nga xamante ne que mooy tënk lii di ay koom fii ci biir réew mi ñoom di GCCI daal dinañu rek ekkiti eh, ay matuwaay ak eh, tamit nag eh, lu toll ci two million li nga xamante nag mooy dalasi pour rek dooleel ñi nga xamante nag ñooy xeex wàllum coronavirus bi ñoom tamit def nañ seeni wàll gannaaw bi nga xamante nag wax ne ne ñoom mun gëm mooy képp koo xam ne rek mu ngi fi fii ci biir réew mi war nga def sa képp ti lay kattan pour jàppale lii di nguur gi rawatina kuréel gu dënk wàllum paj mi Euh, su ko defee ñuy daal di xeex li nga xamante nag mooy coronavirus bi leen euh, dineen ànd ak moom Seydou Camara mi di ci yaatal. Gambien yu bari ñu ngay def seen wàll ci xeex jàngoro coronavirus bi di bi mu dugasee fii ci biir réew mi te tamit institution si mu di bunt yu nekk ci roon nguur gi ñoom tamit desuñu ginnaaw benn yoon. Gambia Chamber of Commerce and Industry ñoom tamit dajale nañ lu toll ci ñaari million ci kopparu dalasi pour xeex jàngoro coronavirus bi bokk na ci koppar yooyu nag jënd nañ si ay bagages yi nga xamante rek moom lañ àggee place bi ñu gën a ràññee ci sanatorium bi mu di place bi nga xamante ne fa la ñu fajee ñiy wéy ak jàngoro coronavirus bi docteur Aboubacar Diagne mi nga xamante ne mu ngi teewoon ci ndaje boobu. yëkkati na ay kàddam nag àggee ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Gambia Chamber of Commerce and Industry ci ndimbal bi nga xamante ne àggee nañ leen ko ci xeex jàngoro coronavirus bi. mu ne depuis bu jàngoro coronavirus bi duggasee ci biir réew mi nag Gambiens yu bari ñu ngi yëkkati seeni ndimbal di leen ko àggee pour ñu xeex jàngoro bi te mu ne yaakaar na ne nag yeneen Gambien yu des tamit dinañ topp ci tànk yooyu mu ne loolu nag waral na. am nañ yokkute bu am solo ci bérébu fajokaay boobu ndaxte mu ne béréb booba nag démb ak tey ute na lool docteur Diagne mu continuer ay kàddam nag di rafetlu taxawaay bi nga xamante ne GCC ay def nañ ko waaye tamit fàttewul benn yoon Banjul City Council ci njiitalub seen Lord Mayor bi mu di Rohey Malick Lowe ndaxte mu ne ñoom tamit di council bi yëkkati nañ ay jumtuwaay daal di ko àggee sanatorium bi mu di place su fajeekaay boobu ndaxte mu ne boo seetee place su fajookaay boobu nag mu nga foofale ca capital bi di Banjul kon mel na ni mu ngi nekk ci place bi nga xamante ne rek moom la Banjul City Council jiite. Gambia Chamber of Commerce and Industry nag jënd nañ lu toll ci fukk ak ñetti air conditions fukk ak juróom-ñeenti ñu daal di ko àggee sanatorium bi waaye tamit fexe nañ ba gis ne képp ki nga xamante ne feebar nga ñu yóbbu la ci béréb booba nag ñoom ñooy dépassé lu aju sa wàllu internet bi ngay jëfandikoo. docteur Aboubacar continué ay kàddoom di ñaax Gambien si pour ñu gëm ne jàngoro coronavirus bi li am la te àgg na fii ci biir réewu Gambia muy ñaax Gambien si tamit pour ñu jël matuwaay yi nga xamante ne ni digle nañ ko pour mucc ci jàngoro coronavirus bi. mu ne bépp matuwaay bi nga xamante ne ministry of health mu di bunt bu yore aju ci wàllu paj meeg wér gu yaram gi ak World Health Organisation bi joxe nañ ko daal mu ne Gambien si. war nañoo jëfandikoo matuwaay yooyu pour ñu aar seeni bopp ci jàngoro coronavirus bi muy ñaan gambien ci tamit pour ñu bàyyi di joxe xibaar yi nga xamante ne xibaar yu wérut la te aju ci jàngoro coronavirus bi ndaxte ne xibaar yooyu duñ dimbali réew mi ci xeex bu ñuy xeex jàngoro bi Seydou Camara Star TV News. gannaaw bu ñuy jaajëfalee Seydou Camara mbokk yi ñu jàll seete xibaar yi bitim réew tàmbale ko foofa ca Kenya Kenya nag lu toll ci ñaar téeméeri doomu aadama ci jamono a ñaar fukk ak juróom ñu ngi am li nga xamante nag mooy coronavirus bi leen loolu war nag nguur yi ci boppam wax na ne daal tiit neen te itamit na jaaxle neen lool ci feebar bi ci boppam lu muy tasaaroo foofa ci réewum Kenya loolu moo war nag wax ne ne nag samit li nga xamante nag mooy gëm-gëm bun am ne eh, lii di sàngara dina daal di war a mun a faj wala itamit nag wàññi eh, li nga xamante nag mooy coronavirus bi ñoom dàqalu neen ko ndaxte def neen seeni kéem tolluwaay kattan pour xool eh, ndox loolu dina leen war a mun a jàppale waaye nekkul di leen jàppale waaye tamit nag World Health Organization ñoom ñu doon WHO eh, di yëngatu ci wàllum jàngoro mi ci boppam àdduna wér nga képp wax ne ne daal nit ñi ñu bàyyi sañu xel bu baax baax ci li nga xamante nag mooy kàddu yi ñuy jot ci internet bi eh, ci wàllum li nga xamante nag mooy coronavirus bi leen waaye tamit nag nguurum Kenya daal dinañu rek wax ne gannaaw bu ñu dàqaloo li nga xamante nag mooy sàngara bi pour mu war a mën a faj eh, li nga xamante nag mooy coronavirus bi la ñoom ñu ngi def seen i kéemtalaay kàttan pour te tasaaro bi nga xamante nag lii di jàngoro bi mu koy tasaaroo foofu mu daal di war a mun a jeex mbokk yi su ko defee ñu jàll seeti xibaar bu jëm ci bokku xaraam bokku xaraam nag mu doon ab mu mbootaay bi nga xamante nag bu ñu xattaloon neen lii di réewum Nigeria ci wàllum xeex tamit nag ay kidnap foofa ca réew mu mucc jamono juntoon yi ku ko jiite di Aboubacar daal dina génne ab audio di wax ne daal lii boo gisee mu am àdduna wér-ngër képp maanaam feebar bi nga xamante nag mooy covid 19 di coronavirus bi dafa am ñaawteef yu bëri yoo xam ne ay doomu aadama def nañ ko fii ci biir réew mi loolu moo ak tamit nag yeneen i réew ah, foofa ca réewum Nigeria rawatina nag àdduna wërngër képp ah, ñoo loolu moo waral nag lii di ah, feebar bi daal di wàcc fii ci biir li nga xamante nag mooy tundu Afrique rawatina nag àdduna wërngër képp loolu tamit nag waral na mu ne daal ñoom ci jamono juntoon ni am na matuwaay yu bëri yoo xam ne WHO daal di ñu ne ko wax rek pour ñeen nit ñi daal di toog dox ci li nga xamante nag mooy tànk yooyu nag tax terewut euh, li nga xamante nag mooy jàngoro bi mu ngi tasaaroo euh, te itamit nag ni muy tasaaroo jéggi na dayo bu baax a baax mu ne daal ñoom nit ñi lu war a rek mooy foog ñu julli juróomi waxtu yi nga xamante nag war nañ koy julli uh, ci bés bi waaye tamit nag fexe doon benn booloo liggéey li nga xamante nag mooy leen war a mun a liggéey loo uh, daal di war a mun a xeex li nga xamante nag mooy jàngoro bi la lii moo doon kàddu yi nga xamante nag moom mu jiitee Boko Haram ci boppam di Aboubacar uh, Siko daal di ko wax ci li nga xamante nag mooy ab audio WhatsApp tasaare ko nag waaye tamit nag am na saaga yi nga xamante nag saaga na ko ku jiite Eh, li nga xamante nag mooy nguurum ah, Amérique waaye tamit nag foofa ca Nigeria Tchad ak Niger Tchad eh, mu nekk dëkk bi nga xamante nag ku ko jiite ci boppam eh, di président Idriss mu ngi daal di bunu xatal li nga xamante nag booy bokk xaraam yi ci tundu Afrique fexe rek fépp foo xam ne rek ñu ngi fa ñu yónni fa ci ñi militari pour daal di leen xeex mbokk yi ñu seet yi mu junteeli xibaar bu jëm ci Libya Libyan yi nag ci jamono juñ toll nii Euh, ñu ngi ndamoo gannaaw bu app nguur boo xam ne wax ne ne dinañ ko fa sës foofa ca réewum Libya Euh, wax ne ne nag neen lu toll ci ñetti tund yoo xam ne daal xaftaar ci boppam euh, mu jiite woon ay rebel foofu noonu euh, fexe jotaat ko ci ki nga xamante nag mooy loxoom kooku di xaftaar ci jamono juntoon yi wax ne ne nag xaftaar amul benn sànni na amul benn kàddu bi nga xamante nag sànni na ko jëmale ko ci wàllum li li mel waaye tamit nag lii di ay militaire am na jamono boo xam ne nag bu nu xattaloo nenn di nga xamante nag mooy UN mu doon kuréel gun ndënk wàllum tëdd ñu doomu aadama yi àdduna wër nga képp jàppale Eh, nit ñi nga xamante nag ñu ngi foofa ca Libya su ko defee jàmm ak tamit nag eh, kaara bi kaaraange gi nga xamante nag ñoom yelloon neen ko ñu daal di ko war a mun a am eh, ni waree waaye nag Haftar dafa mel ni mayul leen woon jàmm waaye tamit nag mu ngi pare woon pour jël réew mooma yëpp rawatina nag seen capital bi di Tripoli waaye ci jamono juntoon yi nag wax neen ne daal ñu ngi fexe di nangu ay li nga xamante nag mooy tund foofa ca réewam Libya waaye tamit nag dineen def seen i kéemtalaay kattan pour fexe ki nga xamante nag mooy Haftar mu bàyyee leen se i réew Euh, su ko defee mbokk yi mu doonoon suñu mujjanteeli xibaar fii ci biir kër bi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax xibaar yi ngeen ànd ci woon ak Dado Thiam di jaajëfal ki nekk ci machine beeg caméraman bi jërë ngeen jëf